salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen a ngi si Guédiawaye info comme niñ koy defee comme d'habitude dans l' émission xoole artiste ak Mbaye Prési aujourd'hui ñu fi a ak Guédiawaye quartier Cheikh Wathie donc ñëw seet si benn label boo xam ne c'est mythique muy Bii Records nga xam ne liggéey nañ lu bari ci wàllu hip hop galsen am na yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ko def si hip hop galsen ñu ñëw seet si leen tey pour waxtaan ak ñoom donc ñu ngi fii Bii Records avec le grand Momo Fati sur Guédiawaye info ak Mbaye Prési yéen a ngi Info avec Mbaye Prezi, vous êtes dans l'émission émission Xooli Artiste aujourd'hui nous ñu ngi à c'est ben si label boo c'est ne un label mythique boo xam ne histoire hip hop te waxuñu ko fi quoi donc on a le réel plaisir d'être là au bureau Corse pour voir Ben grand bi nga il a trop contribué si hip hop galsen def nañ fi lu bari machallah tay lu bari yu bari ñu ngi koy def si hip hop galsen euh, mën naa wax ne ñoom ñooy ñoom ñooy les premières yi nga xam ne ñoo ko def au Sénégal aujourd'hui ñu ngi le le mythique xam nga le symbolique le grand Momo Fati Momo Fati salaamaaleykum. bisimilah aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp yéen ñi nga xamante ni bi yéen a ngi suivre euh, Guédiawaye info di leen bëggee tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ñu seet si tey bëgg a ñun di ñu laaj euh, ci li nga xamante ne bi dina mën a jëmale liggéey bi ci kanam kon kontaan nañ ci yéen kontaan tamit ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi. donc grand Momo tey sama première question mooy gis nañ ne bii Records mu doon rajo euh, label boo xam ne c'est historique ci ci hip hop galsen tey boo ñu doon defal historique bu bii Records ak présentation général bii Records tey la ñuy wax quoi. bisimilah waa jas bégee bégee parce que aussi bon. Euh, dañu bëggee képp koo xamante ne bii dèjà ñu ngi bokk yëg-yëg parce que tamit euh, bu ñu suñu borom jiitalee tey ba tey ñu mën a taxawal label bu mel ne Bibi Cut parce que dañu am yëg-yëgu hip bi ñuy def muy musique bi nga xamante ne bi dañ ci yàgg donc euh, vu que ne aussi suñu borom nattoon nañu génn ci biti gis nañu tamit boo nekkee ci biti li ngay gis ne moom manqué ci biir cercle bi da ngay mën a observer bu baax donc li nga xam ne moo ci manqué woon nag moom lañ yàgg mébét di ko ñaan borom bi ba tey suñu borom jàppale nañu ci donc euh, loolu moo waral biir record bi you know. waaw léegi man sama question bi ñu posé mooy euh, bu ñuy wax biir record en fait mu nekk ay artistes am yooyu donc mais si liñ leen gën a xamee woon tey hip hop bi li ko gën a jëmale kanam man mën naa wax ni yéen ko fi indi. muy di couvrir événement yi par rapport ak photo yeeg image yeeg affaire parce que man bokk naa si ñoo xam ne euh, am na live yu bëri ay concert yu bëri bi records moo tax ma seetaan ko à travers YouTube donc tey yéen ngeen nekk ñi nga xam ne yéen a njëkk a jëmmal yooyu mooy wàllum support médiatique yi yéen euh, idée boobu fan na leen fan la jóge ak lan moo leen influencé ba ngeen ngeen gis idée boobu quoi ba teg ko quoi ba nga xam ne boobu gaal seen instant bi kenn mënul wax te mënuñu wax support médiatique yi yéen lan moo leen influencé ba ngeen njëkk a comprendre euh, dayo bi nga xam ne support euh, médiatique yi am nañ ko. bisimilah waaw jas mooy boo déggee moom laa lay wax quoi mooy li nga xamante ni bii moo nekkoon suñu mébét mooy hip hop hip hop bi nga xam ne dañ ko doon def donc euh, soo nekkee su la yàlla nattoo ba nga nekk ci biti dafay mel na nga tiim benn cercle donc cercle boobu ngay tiim euh, souvent da ngay mën a xam lan moo nekk ci biir cercle bi ak li nga xam ne cercle bi laaj na ko li manqué li nga xamante ni bii soxla nañ ko. pour war avancer donc lolu dafa dafa def ci man ma sacrifié au benn côté ci sama ci sama wall côté artistique comprendre nga jëm na stand by tout tuuti pour mën jëma apporter li nga xamanteni ni bi tey ni mom la mouvement hip hop bi soxla parce que aussi dafa am benen génération bo xamné ñu ngi nekk ci ginnaaw du ñew te am na yu bari yo xamné Eh, gars yi comprendre luñ ko woon donc ñun li ñuy def mooy def sacrifice boobu noonu ñëw xool li nga xam ne moom la manqué ñu bëri dañuy dégg hip hop te xamuñu lan mooy hip hop wala ñu koy dëkkale foo xam ne dëkkul foofu léegi nag ñu ne pour quoi pas ñu investir ñëw jéem a wane taaru hip hop boobu nga xamante ne bii taaru na te loolu moom moo ñuy suuxal ñun li ñu dundal ñu mën ko partager ak doomu aadama yëpp ba ku ci nekk jot ci sa wàll mën a xam ne tamit lii luy contribuer la ci dëkk bi quoi donc daa su waaw tey bii Records mu ngi évoluer évoluer hip-hop bi aussi Galsen di évoluer donc mais on a vu que tout dernièrement bii Records influence bi mu doon am ci hip-hop Galsen bi dafa xaw a wàññeeku loolu lu ko waral. bon no du ma ne wàññeeku parce que bu ñuy wax dañ naan double daf ko doubler parce que boo xoolee aussi tey jii nii li nga xamante ni bii euh, moom la ñu bëri nekk di def nii tey. biir ko def na ko démb donc mënuñu continuer di ko def loolu la olof di wax xar dafay weesu mbote donc moment bi ko ñeneen di def ñun ñu ngi ci yeneen ni idée yeneen ni innovation yoo xamante ni bii ñu ngi ko dee def fii si en comprendre donc mënuñu continuer di def couverture médiatique boobu parce que am na suñu yeneen ay rakk yu ñu ci fekk si di ko def donc ñun li ñu war mooy eh, jéem a xalaat ci yeneen ni idée pour liguer pour mon avancer donc boo que tu liggéey aussi ben instant bi fay soxla nga de quoi mais chaque fois da ngay publiquement nit ñi donc aussi depuis vous nonu nga xamné nit ñi déggatuñu ci couverture médiatique peut-être bàyyi nañ couverture médiatique yi mais ñu ngi nek di def yeneene i yo xamanteni ay projet la yo xamné ne yaakar nañ ne buñ ko génné doomu adama yépp dinañ content ci bi nga xamné mo waral ñu tëju quoi donc loolu la mais du du du influence moo wàññee ko tey la influence bi ëpp doole parce que ñu ngi créer yoo xamante ni bii bon mën nañ ne innovation la quoi te ñu ngi koy def te nit ñi ñu ngi ciy continuer di jàng quoi donc daa su sa actuellement lan mooy actualité biir COP ak aussi lan mooy actualité donc euh, artiste bi nga xam ne mooy Momo Fati bon actualité yi mën nañu wax ne bon man sama cas bon dama koy dëxëñal ba ci parce que aussi boo di ay ay souvent dafay nga xel bu aussi moom moo leen di build carrière pour pour ci kanam quoi parce que affaire yi ñun dañu carrière la quoi carrière dañ koy liggéey la quoi. donc actuellement euh, am na beneen branche boo xam ne ngi ci ci côté vidéo donc booy ñu ngi joob ay projet donc projet yi ñu ngi leen di commencé jox ay single par benn benn ñu ngi leen di commencé defal ay musique vidéo am yenn collaboration yoo xam ne ñu ngi koy def ak yeneen euh, yeneen mën naa ne yeneen structures yi fi nekk comprendre nga donc euh, donc lolu moy liggéey bi quoi lolu moy actualité bi djema djital boy yi nga xamné ñu ngi nek ak man di liggéey fexé ba nga xamné aussi nit ñëpp dinañ gis li nga xamante ni moy mooy euh, mooy li dexuñu ci ñom quoi li nga xamné mo nek ñom di nelaw lolu la ñuy té lolu ci lolu la nek diko ko quoi donc daa su sëb. actuellement ñaata groupe ñoo nekk biir record c'était est-ce que ñu nga ñu defal présentation groupe bon actuellement li may préféré moy bon. bañ a wax ñi nga xamante ni bi ñu ngi nekk euh, biir ko yëpp comme artiste parce que non loolu c'est dafa nekk loo xamante ni bi système bi ñu joobee la cela va pas dire que ne bëgguñu wax seen tour wala whatever mais eh, am nañu jot a génn yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñu ngi suivre page yu biiri kat dinañ dinañ jot a xam ñooñu comprendre nga ñi ci des aussi euh, bon seeni projet ñu ngi en cours am na ñoo xam ne seen projet yi bon amna dit ci yo xam ne nañ ko ba pare fi nek ni koy donc nous, wax nit ñi rek bon képp ko da ngay bëgg euh, actualité bi di ko ñu suivre ci page aussi bon dara bon dara du la raw quoi ci li nga qui la di liggéey actuellement donc ñu leen di wax tamit ngeen di dugg ci page di quoi et puis qui leen partager you know that's what's up

nekkul ne tey lañ ci duggu nii démb yàgg nañ ci quoi bu ñu demee ba ñu mën nit ñi di feete naan ñu ngi feete ay année ci hip hop bi comprendre nga feete ay ci hip hop aussi bokk na ci nga war a nga war a mën a toog def prise de conscience jéem a xool liggéey bi nga liggéey fan la la yóbbu ci àdduna bi comprendre nga donc man vu que ne aussi damay gis ne ci côté professionnalisme côté quality dañ ci manqué lu baree bëri moo tax man suma xeex bi njëkk côté quality la parce que mu ngi mel ne comme par exemple bi Eh, plugins yi ngay gis wala genre fréquence la quoi de xam da dégg ci nopp mu ngi actuellement tey jii fi jamono toll nii ñu lay wax comme yenn marque téléphone smartphone whatever actuel actuellement ak yi nga xam ans ci yi def ans ci la doon won yi ñu jël parce que da ngay gis amatul quoi du xam concurrent Euh, li nga xam ne mooy smartphone yi nga xam ne dafa génn ren smartphone yooyu noonu par exemple li nga ci mën a gis qualité image bi nga ciy am comprendre nga mooy tax dootoo mën a dellu ginnaaw di seetaan image boobu musique pareil comprendre nga gars yi dañuy update dañuy update donc musique bi lépp dañ koy jaay dafa cher plug yi dafa cher analogue yi dafa cher na gars yi di investir di jënd matériel bi nga xam ne mooy def musique parce que artistes yi ngeen di gis sur le plan international aussi ay rëboo ñoo leen di buux quoi rëboo yi ñooy lan mooy plug yi yi mooy li nga xamante ni quality quoi nañ job ci quality and that's what's up. Uh, côté médiatique bi aussi loo si gis euh, par par exemple gis nañu instant bi artistes dañuy utiliser plateforme plateforme toile internet beeg yooyu donc euh, yow tam ban regard nga si am par rapport ak yow mi dem extérieur gis lu fa nekk ak instant bi nii gars ni koy utiliser. yeah yeah it's a future mooy futur bi comprendre nga. parce que actuellement mën nañ journaliste parce que ku ci nekk yaa ngi yor micro yaa ngi yor caméra ci sa poche si yaa ngi donc lu xew à tout moment nit ñi nañ filmer buñ ko filmer fa lañ koy def ci réseaux sociaux yi lañ koy def comprendre nga donc aussi eh, tey àdduna bi toll na ni bu njëkk ba li nga doon liggéey naan sama cassette bi eh, wala sama CD bi wala Vous eggul fii eggul fële bokkul ak tey comprendre nga tey boo musique Euh, plateforme yi koy jaay comprendre nga is the same ben la ak plateforme yi nga xamanteni bi ñoy jaay eh, superstar bo mën gis ci aduna bi plateforme yi muy jaay tay ji ni tay boy bu nek ci xët bi mën na fay jaay comme mom donc tay boutique bi ben boutique la job quality dugal ci la and that's what's up yeah wow léegi instant bi lan moy sa dernier mot ak tamit euh, yan conseil ngay joxe en plus euh, par rapport ak hip hop géej waaye bi aussi ñu ko si li may wax foofu mooy bon di leen bigam ñoom ñëpp man doomu géejawaay la tey jii nii su ma ñëwee tey ba teg lii fii géejawaay parce que man géejawaay leen damoom fi laa dëkk you know mënuma ko def feneen fu dul géejawaay comprendre nga donc képp koo xamante ni bi aussi da ngay link ak man wala ngay joob ak man comprendre nga fii sama kër la quoi géejawaay sama kër la na ma fi ñëpp fekk si ñu liggéey liggéey boobu sumb boobu nga xamante ni bi sumb naa ko ñu ànd ci liggéey quoi parce que ku nekk tamit sa town nga am sa site nga am mais terewul ñun ñëpp war nañu war a mën a link you know and doon benn donc ñi fi nekk ci jeunesse bi aussi ma leen di bon jox advice que aussi comprendre nga musique yombul comprendre nga lépp loo xam ne dañ ci nekk nga ne moom nga bëgg moom nga gëm fullaal ko jox ko àqam comme ni ko picc di joxe ci tàggam ba xëy dëkk ci taaxam that's what's up yeah. merci grand je pense que waxtaan bi jëlee nañ ci lu bari bari bari ñu lay remercier bu baax. encore une waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf dolli leen sant parce que aussi bon ngeen jóg di seeti nit loolu def ay jéego la jóg di seeti nit loolu euh, coono boo xamante ni bii da nga koy yëg pour seeti kooku la. donc ñun du ñu def lu dul jaajëfal leen du ñu def lu dul aussi yokk leen a encouragé ci li ngeen di def parce que aussi li ngeen di def yéen a ngi ci yoon bi yéen a ngi liggéey lu rafet donc euh, euh, lii lépp wane taaru géejawaay jéem a wane li nga xamante ni mooy li xew ci biir géejawaay parce que bu fekkonte ne def leen déplacement ngeen ñëw fii nii mën leen a xam lu nekk ci ruq bi donc euh, ñu ngi leen di jëfal daal yàlla na borom bi aussi yàlla na borom bi eh, gën a dëgëral taxawaay yi yokku leen yokk leen yokk bu kawe seen njort and that's what's up Wow, nous remercions remercier bu baax bu baax un grand Momo Fati ak b tous les artistes de Bi Records donc euh, y a une émission pour artistes Records à avec le grand Momo Fati donc nous allons di sur merci